nga dëgg ginaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa dañuy sant d'abord waa Bambey gépp ci jàppale bi ñu jàppale ci dëkk bi ba suñu boroom teg ko ci suñu loxo muy mairie Bambey bi donc dañ ciy sant waa Bambey d'abord ensuite sant ci bu baax sama staff bi nga xam ne ñoo ànd ak man li ma jàppale ci liggéey bi ginnaaw bu loolu wéyee wax dëgg yàlla li nga wax dëgg la euh, suba dañuy teetu gan gu gu am solo ñu koy wax le man Mansour fay mu war a ñëw euh, inaugurer lancement wu travaux construction de la route Bambey Baba Garage Mekhe mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla dafa tombeek sama ay ndax boo seetloo c'est une vieille doléance boo xam ne daanaka ëpp na fanweeri at depuis temps Pierre Senghor le premier maire de Bambey ba léegi mu nekk doléance boo xam ne chaque mandat dañ koy jooy maire bu fi ñëw loolu di nga ci wax ba dem du réaliser wu kon nag bu naree réaliser wu ci sama ay dama ci sant yàlla bu baax sant la sant la waa bu baax ci réalisation euh, tali boobu di ci sant aussi son excellence le président de la république monsieur Macky Sall parce que umpulewul leen ne lii bokk na ci mébétam ndax dañ ko yàgg a joytu tali bi moo tax bi ne monsieur le ministre day ñëw inauguré ma sant yàlla te xam ne réalisation bu bokk na ci euh, li ma waxtaane woon ak son excellence le président la république bi ma recevoir au palais donc loolu mu waxoon ak man foofu dëggal na ko tey jii ndax ñu ngi jëm ci war a tàmbali liggéey boobu kon nag nañu ci sant yàlla bu baax di ci sant son excellence le président de la république ndaxte wax dëgg yàlla euh, mën naa ne diggante Ziguinchor ba Ndar yaakaar naa ne bu tali bu pare euh, kenn dootul wax désenclavement kenn dootul wax enclavement plutôt kenn dootul wax euh, tali bu xonk kenn dootul wax euh, tali bu naqari ak ay déviation parce que bu boobaa di nga mën a jege Ziguinchor sans pour autant nga jaar si ay Thiès ak tegg bi def directement Ziguinchor Saint-Louis donc loolu mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla mun naa ko woowee ci tubaab bijou loo xam ne loolu lu raar la yàgg nañ ko joytu comme doléance et son excellence vient de vraiment faire cette réalisation waaw yeneen i projet yi ñu waxtaanee mën naa ci mën naa ci wax tuuti parce que vraiment euh, son excellence bi ñu bi ma wooyee ma ñëw fekk si ko wuyu ko en tant que njiitu réew ba ñu toogee waxtaan dama ne ko man day euh, fekk si bi ma fekk si bi ma la fekk si danga maa woo di nekk njiitam réew mi euh, ba ma wooyee dinaa la wuy si ba ñu waxtaanee la ma xamal ne fii sa kër la woon da ngaa demoon wuti waaye xam nañ ne la nga wuti am nga ko donc damaa bëgg nga dellu si sa kër ñibbisi fi nga nekkoon su ko defee ñu mën la jàppale bu baax ci Bambey dëkk ba jàppale ci jàppale bu mucc ayib fexe ba Bambey développé bu baax a baax émergé bu baax euh, ba nga xam ne vraiment lépp lu ñu fa namoon ci ay réalisation ñu mën ko fa def donc loolu lañ bokk na ci li ñu waxtaanee notamment muy problème mu marché bi. Euh, vraiment maa ngi cee maa ngi jàpp sax te mu def fa une visite pour xool vraiment marché bi ni mu ni mu tëddee pour ñu ñu ñu jàpp ci réflexionné ko bokk na ci li li président wax aussi ñu defaraat marché bu baax a baax. waaw loolu jar na ko gan gi ak la muy seet si jar na mobilisation jar na une forte mobilisation parce que loo xam ne ay lu ëpp fanweeri at yaa ngi koy joytu di ko wut mënoo ko am. Euh, son excellence ñëw defal la ko kooku jar na mobilisation jar na une forte mobilisation ànd ak le dem tertu gan gi teral ko daal di ànd ak moom euh, ci liggéey bi incha allah. junj nga ko léegi désenclavé na mm. dina am leneen pàcc boo xam ne dina ko indi ci seen koom. mel ni ay ressources yu bees ci Bambey. Mm. route bi dina ko ci am. waaw loolu moom euh, ku wax rek route am na ay retombées économique mais li ma ci gën a soxal surtout c' est l' emploi des jeunes si le plan local loolu moom dinañ ci interpeller le ministre incha allah euh, su ko defee ñi nga xam ne ñoo yore travaux yi entreprise boobu ñu def seen kéemtalaay kàttan ba mën a employer les jeunes locaux les jeunes qui réside à Bambey à Baba Garage à Mbexe et cetera loolu moom euh, vraiment retombée économique la bu baax a baax euh, ci Bambey ak Baba Garage bi ma tudd. xanaa bala ngaa woor commencé liggéey. man commencé gu ma ñu tënk ma. loolu commencé gu ma ñu tënk ma loolu war nekku fi mais li nga xam ne def naa ko wuy ji président de la république mu wax ma loo xam ne intérêt Bambey laa ci gis moo tax laam-laame mu ci benn yoon parce que man Bambey rek ma taxoon jóg rien que pour l'intérêt de Bambey bu ma gisee loo xam ne day développer Bambey di ñoŋal Bambey di defar Bambey man dama ci daal di ànd te loolu ma président tegal ci taabal ji donc moo tax man intérêt Bambey fu ma ko gis foofu laay taxaw def ci sama kéemtalaay kàttan